entre les sélections africaines xam nga contexte match yi ñoo bokkul. Mhm. ak contexte niveau bi ñu nekkoon. ñun dañu nekkoon à la recherche d'un premier trophée donc tant que ñu nekkoon à la recherche d'un premier trophée di jouer génne équipe bi muy difficile si ñun suñu defee match bon d'abord loolu peuple bi ni mu koy jëlee moo mënu woon baax. Mhm. moo tax Aliou daawul bëgg ñu jouer génne équipe yu mag yi loolu aussi il faut ñu comprendre ko noonu. mais aujourd'hui Sénégal egg na à un niveau tel que mënatul bañ yéen et puis sax def loolu mhm. moo jël nañu Cameroun dañuy jaar ñu ne aujourd'hui on est obligé de prendre les grandes équipes de de se frotter avec eux parce que nous sommes des grands léegi nous avons touché à notre premier trophée c'est-à-dire que aujourd'hui li ñu li ñu ragal gañew leen dara amu leen fi dara loolu léegi loolu loolu loolu vaincre nañu ko pare ah, parce que cette peur de perdre là cette peur de ne pas amener une coupe loolu daf ñu doon traumatisé donc loolu loolu teg nañ ko fële mais nag il faut xam ne aussi contexte match yi bokkul gis nga Algérie match bi ñu joué bi passé contexte bi c'était un peu difficile pour nous et c'était bien pour les Algériens parce que Algériens dañoo traversé benn période bu difficile ñëwoon ñu gañe leen fi ñooñu ñu gañe leen fi ñu gañe fa fi nul daf leen doon arrangé mais match suñu match boobu su ñu ko joué ñun mënoon nañu taxaw xaar su Algérie ñu gañe ko. mais bu nga ñu ko joué lii la la ma xewoon. parce que Algérie doon dute ñëw Sénégal encore taxawaat comme nu mu taxawee woon ci ci ci ci ci ci final bi ensuite am na loo xam ne wax ñu ko l'arbitrage de ce match là c'était pas bien. suñu match suñu match bi ñu joué bii non l'arbitrage c'était pas bien. ak seen contexte politique bi. l'arbitrage c'était pas pouvoir yëpp. ñëw dugg ci peut-être on a suivi le match non mais mais Sadio Mané dañ ko y a eu beaucoup de fautes. c'est comme sur l'Afrique il y a eu beaucoup de fautes yoo xam ne at bi aussi da da ko seet donc donc sur ça aussi duñu ci appesanté sur sur le problème d'arbitre d'accord donc lu yëpp ça a joué lu yëpp ça a joué mais maintenant le problème mooy aujourd'hui une équipe boo xam ne dafay taxaw comme Algérie nu génn ban réponse le Sénégal di di indi je pense que ci loolu la ñuy liggéey et je pense que le Cameroun c'est un très bon adversaire pour parce que Cameroun ce qui est sûr mooy bu ñu ñëwee dinañu xaar et maintenant à nous maintenant de de de de travailler ça. Mm. seet après loolu pour pour que équation bu ñu ko amee ci Coupe d' Afrique. ndax dañu lu si mën am rek mooy équipe moom sa première occasion nga dugal ko dafay ubbi lu bari. xam dafay yóbbuwaat ci ci li nga xam ne euh, ki nga xam moom mooy ma Belmadi wax na ko mais aussi Idrissa Gana Gueye dafa ne euh, le match importance mu amoon ñun moom mooy amuñu habitude ñun sénégalais di jouer des matchs yi nga xam ne mooy match yu am envergure bu loolu benn la de deux moom mooy Belmadi euh, en zone mixte ce qu'il a fait savoir xëy na moom mooy euh, le Sénégal ñoom xam nañu léegi comment jouer avec le Sénégal moom mooy peut-être li nga xam ne yaa ngi ko doon soulever mais tey le Sénégal nga ne dafa war a travailler quelque part ci li nga xam moom mooy comment concrétiser les occasions la face à des grandes nations mm. euh, techniquement pour yow lan mooy faayu Sénégal tey face à ces grandes nations là ba à chaque fois ça ne passe ñun ci li ñuy terminer à fois moom mooy de la frustration qu'est-ce qui se passe en fait non c'est-à-dire que ñun en fa ñun euh, en général mun nañu contre mais une équipe attentiste en général daf ñuy ay ay ay ay ay difficultés. loolu yëpp jàngat la voilà yooyu yooyu yooyu yooyu yëpp la. d'accord mais aussi il faut xam ne aussi algériens yi match yu jeunes ñoom ñëpp dañuy muscler le jeu. Mhm. loolu aussi il faut mu am aussi un répondant peut que. c'est ça mais attention mais aussi li Jamel Belmadi dafa gagné moo tax muy wax loolu mais ñun aussi Égypte ñun li ñu dal ci Algérie dal na égyptiens <laughs>